man Sidi Diaw conseiller technique du maire de la commune de Bambelor, Nek responsable politique di jàppale son excellence le président de la république monsieur Macky Sall di nuyu aussi le khalife de euh lu beuri nak ñi nga xam ne jël nañ fi pas cadeau antu nañ ci man damay ñëwaat rek di fatali le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ak kan le khalife de Bambilor ndax c'était en 2013 sumo ma combat bu melni mëne won nañ ko fi moy aux alentours de la Comico comme fi mu nekké aux alentours de la Comico Comico bi mu ñëwé fi jël walam ba paré en 2010 bi ñu commencé construction yi dafa am benn pàcc boo xam ne dañ ko bàyyi bi ñu ko bàyyee am ñu jóg diko tiax tiaxé biñu ñëwé ñun ñu né li nak askan wi lañ koy jox ñu taxaw di ci xex am ci ay citation directe am ci lepp bobu le commandant de la gendarmerie ku ñuy wax ma yassine Fall mo fi nekkoon ñew taxaw si côté population yi informé le sous-préfet à l'époque muy Balla Bokar Diakho mu joué si rôle bu am solo jour bi mu ñu recevoir comme nii ñu daje mbooloo def na lii teg leen ko ci suuf mbooloo mu toll nii nekk ay sénégalais nekk ay miskinu yàlla duma leen xañ fu ñu dëkk jox ma ordre ne ma defaral suuf si nga jox ko ñi nga xam ne ñoo koy yellool je crois que temps boobu aussi amoon nañ altercation comme nii parce que le maire ñëwoon na fa wàdd mii mu ngi taxaw seede la si man parce que wàdd fa la nekkoon ñëw di arrêté foofu ay nit après c'est l'autorité administrative revenir à la raison ba tey di gens. Nous, responsables mais si nous sommes ba nga responsable politique monsieur euh, Ndiagne Diop Ben suuf mu hectares ci hectares caisse de sécurité sociale plan bii nga xam ne plan cadastral la ma koy brandir ba ñëpp gis ko kenn gisu ci fuñ ci bind caisse de sécurité sociale mais boo demee tey bi nga xam ne mooy 65 07 bi ñuy wax Ablaye Dieng moo ko moom boobu effectivement Ablaye Dieng moo ko moom Ablaye Dieng moo ko moom ñu xam ko bu baax mu nekk nit ku yiw am ay population yoo xam ne nee nañ agressé nañu suuf soosu jàpp naa ne Ablaye Dieng man dem na birom ben yon du ñaar yon and ak la jong ko xam day dimbali ay nit tay ñu ñew taxaw naan bu fekkee fo population yi da leen di toroxal da leen di diri man Ablaye Dieng bi ma xam xamee ma ci mom lolu motax mané population yi tok leen fofu nga xam monsieur le maire bi nga xam moy mooy job mo defar protocole yi ak ku ñuy wax Abdou Aziz si keneen ku ñuy wax ak Dieynaba Ndiaye mom mo defal ay protocole fi ci all bi du côté bi rek ba nga fi ñuy wax mom mo defal protocole def ay notification ñenn ñi dem fay ju ordre de recette man lepp lu may wax amna naa kayit firnde dossier bi yep comme dossier bi nga xamne ne ñu concerné souci ku ñuy wax Souleymane Ndiaye moko mom amon na délibération ba tay ji ken ko sommation ne ko souci momoko souci momoko photocopie quarante ma ngi ni mo def ak si benen bi ci dess amna ku ñuy wax sam Ndir mu ngi fi tok moom la Maodo Gaye délégué Maodo Gaye ñëpp xam nañ la famille gay Tamba ñu amoon fa suuf yaatu ñoom it ñu def ak promoteur bi protocole vingt pour cent yooyu nga xam ne nag moo indi problème bi moom la ñu wax ne nañ ko jox jeunes yi njox nga xam ne ñoo ko yeeyoo de manière très transparente loolu nag moo tax muy brandir ay moo tax muy brandir ay plainte ñëw di ma xooxatal ne ma lii yëpp ay protocole la lii yëpp ay protocole la ak ay notification muy brandir ne dem na dem na dem na brigade de recherche dem na le sous-préfet avisé na ñëpp ne man ma joxe souci ta te droit joxe souci man joxewu ma suuf tey joxewu ma suuf suba ki defal protocole parce que fofu nonu ñuy wax le 17 ay poulailler ño fa nekkon ak ay garabu mango kan mo defar protocole bañu ñu dindi ko kan mo defar exploitation bi avis favorable bañu ñu ñëw extra extrait suuf kan mo defar kan mo daanel poulailler yi sañ man sañ-sañ la promoteur bi am ba di ko dindi bu amul protocole dina ko mën a nekk man damaa am sañ-sañu defal protocole du ma maire aw ma droit atribution une fois encore de plus naka ma j'interpelle l'opinion nationale internationale que maire mu ngi def ay accusations yu grave à ma personne man lenn mooy sama responsabilité ñi nga xam ne ñooy population yi chaque fois damay toog fii sama bureau location fayal ma location fayaguma weer sama doom nangam-nangam am ay manquement ma xam ne tey bu ñu jëlee tey benn pers benn parcelle bu 150 mètres carrés octroyé ko ñi nga xam ne ñoo ko mérito octroyé ko ñi nga xam ne ñoo fi liggéeye am fi fonction je crois que ñoom dina alléger seen souffrance loolu moo ma dugal ci mbir mi. kon kon bu dee moom dafa am ñeneen ñu mi accuser na xooli na xooli boppam ak entourage am instant yi may wax ak yow nii. ñun ñëpp am nañ lu ñu metti ndax Maguette Diallo mi toog fii tey maa ko contrainte pour mu toog wax mais am ñeneen ñoo xam ne bëgg nañoo teew fii mais mënuñu fee teew ndax lan buñ fi taxawee ñu jàpp te protocole yu normal lañ joxe parce que ñu si euh, gestion foncière ñu ko maîtriser bëriwul suuf yi nga xam ne moo am tey fii ñuy wax ni domaine privé de l'état la propriété exclusive de l'état du Sénégal mooy 1975 R bi kan moo ko moom du sénégalais yi ma joxe benn exemple. Agorom 2 am na ñoo xam dañoo ñëw foofu di brandir benn titre waa Mbaaw moom moo leen dàq récemment keroog bi ma invité ndogu Papa Ndiaye moo ko doon confirmé ne ñoom ñoo leen dàq ba ñu dem tey tabax nañ fa ay tabax yu mag foofu la sëñ Abdoulaat amoo woon terrain wam dañ koon nangu jox ko keneen te Pape mbay moo ko mayoon terrain bi mu dem ba def fa fondation donc te yooyu yëpp dañ koy dénoncé mënuñu ànd ak moom ba pare nekk complice yi nga xam ne moom lay def moo tax dañoo sës moo tax ñu taxaw tey yuuxu ñu ngi yuuxu nag di alerter le président de la république mu ñëw xool njabootam bi nga xam ne moom moo nekk fii ci commune Bambilor fii commune Bambilor dañ koy gërëm di ko sant ndax feera bi moo ko fi indi mu nekk 3 kilomètres 200 mu indiwaat fi Promoville bi mu nekk 3 kilomètres 400 kooku ñun mën nañ koo bañ dañu ànd ak président de république tey ba suba mooy suñu candidat tey ba suba moom la ñu àndal jeunesse bi nekk fi yëpp moom la ñu àndal mais ñu ngi ko interpellé nekkoon na arrêté monsieur Ndiagne Diop balaa muy gën a pire. parce que suuf bii tey dafa mel ni garab xabu dafa mel ni tey garabu niima nga jël ci benn xob plus de lan quarante mille hectares quarante mille hectares je bien boo jegee taliba li ko déparé caisse de dépôt et consignation ba ñëw fii jeunesse Bambilor soxlawuñ ci lu dul cent quatre parcelles loolu jël na coow bi yëpp jar na coow bi yëpp beneen bi ci des may alerté ne dafa wax ne tey xaw ma madame Tine xaw ma xaw ma kan encore ku ñuy wax euh, je crois euh, Mademba Sonko sax yakarna naa ne bokk si parce que Madame Sonko xam nañ kon mom il est toujours aux côtés des populations madame Tine defna ay defna ay plainte contre man ak ku wax Waly Ndaw ak ku wax Saya ne ñun ñoo jël soufam joxé ko benen bi ci res mu ne tay jeunesse bi bu ñu fa dindé benn borne bu jeunesse bi révol défé ay révolte mom ci bopam day wax ne ñom ñoo dem yak tolam ñun je le dis encore une fois xamuñu fu am tol xamuñu fu amul tol té damay laajte kañ la Ndiagne job am tol Déni Biram Ndaw kañ la ko fa am mom gorom do la dëkk bu dé dafa am tol Déni Biram Ndaw lu tolloo 4 hectares moko wax ñun loolu toppatoowuñu ko suñu yoon newsi té jeunesse bi ñun lu ñuy suñu combat lan la dañ ko def de manière pacifique parce que mëno and ak état ba pare di yaq di saga di tal tay le développement ken mënu ko freiner parce que Bambilor li dal yëmbal dal parcelle dal Kër Massar gii ñu jege day dal bambiloor ala kulli àll day dal Bambilor mais nañ ko def ci nga xam ne noonu la fi ACIS ñëwee parce que ACIS dafa ñëw def prévalidation projet fay ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñëpp ba mu mat ku nekk dem sa yoon dem jënd feneen tool ñu jëlaat encore exemple ci caisse de dépôt de consignation caisse de dépôt bu mu ñëwee daf ne non seulement nit ñi du leen fay ci barème yi nga xam ne moom naa barème standard yi déedéet daf leen fay ci barème APIX dem na bay fay ay tool cent deux million cent cinq millions cent dix huit kon jaaraama caisse de dépôt de consignation moo tax def na terrassement bi de manière apaisante amul benn coow amul benn bruit parce que dafa ñëw collaborer ak population yi collaborer ak notable yi collaborer ak imaam yi collaborer ak président ASC yi ñoom ñëpp waroon nañ fi teew am nañu fi teew ñu ñëw ñu waxtaan collaborer ak borom tool yi ku ci nekk la nga xam ne mooy sa yeq ak sa yelleef ñu def ko kon loolu la président Macky Sall indi en 2013 moo tax caisse de dépôt de déggoo fi benn coow de cette manière nag la ñu bëgg tey waxuñu tey mu jël lépp parce que état dafa am ay projet mais na fi bàyyi benn lu tuuti loo xam ne tey au mënees bénéfice dañ koy def au bénéfice des de la jeunesse ñu wax 60 hectares 60 hectare yooyu noonu daf ko fi fekk mooy loo xam ne président Abdoulaye Wade moo ko fi bàyyi moom mu ñëw donn ko conseil des ministres décentralisé bu Tëngéej prononcé wu na si joxe ay directives. tardé wul si mom si équipe administration bi fofu la tarder mais du si président parce que président def joxe ay directive lolou nak kenn moko initier won moy le calife de Bambilor kon ñu ko ci interpellé momit fam fa mu xamné jeunesse am ñu ngi ci duñ ko jital duñ ko fakatal de renouveler encore suñu confiance ci mom le calife de le calife de Bambilor ak le chef de village de Bambilor ak ku ñuy wax le responsable euh, Zal Diop ñu lañ ci interpellé mais bu dee le maire ce qu'est-ce lañ ci xaar wallahi azim du sotti parce que mom ci laminam yëpp lan la xam titre privé titre privé titre privé yëfu jaambur yëfu jaambur te ba ba neex tey jii ni campagne électorale yëpp ñom Maguette Diallo yi ñoko def man j'ai décaissé beaucoup d'argent pour son réélection mais lan la ci bénéficier ay convocation ak du mépris mu def ma conseil technique ba légui ni je défie son cabinet ma suma ma jot ben lettre d'invitation bo xamné ne na ci ñom ba paré nga né danga ma def conseil technique numéro deux ay farce la xalé newu fi donc ñun defuñu li pour politique xëccuwuñu pour nek dara ci maire wala nek lenen dañ koy def pour appeler son excellence le président de la république li ñu bëgg une fois encore de plus Souci, si na si jeunesse bi bénéficié wu na femme bi les porteurs de projet ñi nga xam ne nañ ay formation agricole nañ leen ci jox ben faay nak lañ koy wax parce que mom bi mu def décret en 2016 dafa créer portant décret portant des pôles titre yi ñuy wax yëpp facto dafa facto xam nga lu tax dafa facto dafa am beneen titre bu ñuy wax 14 337 moom mooy titre pol bi moom la délégué du pôle di joxe mais fii c'est du n'importe quoi lan nga mën a defee décret 2016 nga def 14 337 ba pare am yeneen titre nga bàyyi ko si biir dafa kaddu pour ñun moo tax na revoir suufu loor li nga xam ne moom la si jeunesse bi am ñu jox ko ci. li nga xam ne day indi coow ñu jël leen feneen jox leen feneen parce que Sénégal yaatu na fi ñu mën a jox keneen yaatu na.

ñi nga xam ne ñoo nekk si mbedd yi tey mu dëgër pir leen dinañ leen fu mun a installer mécaniciens yi soudeurs yi tailleurs yi nga xam ne kenn du ku ci nekk loo soxla da ngay dem foofu fekk ko fa zone boobu tey saccagé nañ ko jël nañ ko def ko ay dëkkuwaay ba instantoni tey boo jogee tey Lac ba ba ngay egg tey jam ñaajo lépp ay kër la donc na si président Macky Sall jóg tey jóg suba may dénoncé beneen mbir am na ñoo xam ne dañoo ñëw tey dugal ñu ne nañ leen jox ay bail am nañ xaalis boo xam ne tey moom mooy liggéey euh, foncier boobu muy wax logement logement yooyu nga xam ne mooy logement sociaux yi defuñu loolu dañoo jëlaat titres di ko jaay comme kay ku mel ni Ablaye Dieng mu ngi jaayee titre am à 30 di ko brandir am na ci ñoo xam ne fay nañ ko lu mat 28 milliards mais dafa bañ ne 30 milliards lañ koy la koy jaayee dëgg la sénégalais la comme ñun am na droit am ci suuf bi état moo xam la moo tax mu jox ko mais tamit na gëstu ñi nga xam ne tey ñoo dëkke Bambilor muy village Dén le village de Bambilor ak le village de Deni Biram Daw nord et de sud jafé jafé yi bëri na parce que tay promo ville bi liñ ci gis ñun biñu ñëwé tay Fera bi mu nek 3 km 200 3 km 300 mom si boppam mo jël initiative tey nit ki bu la nové conseil technique dina la wo man dama bëggon tay projet bi ñu jël lepp ñu ñu ñu bañ ko def lo xamne tay di projet politique la xol artère yi nga xamne tay fa la nit ñi di jaar rek ñu jël défar bayyi deug deug deug problème yi problème mu bambiloo deug deug deug moy fan pont bi nga xamne mom mo nek keur seigne Touba parce que ndox yi nga xamne tay mo joge jógee na la ci ginnaaw yom ñuy joge sebi bu ñu ñewé fofu lañu wara jaar bu ñu ñewé ba fofu tay côté bobu lañu waron commencer assainissement bi wacc ci souf lay tay liñu def fi tay yeb buñ ko programmer won fofu je crois que moy 3 km 300 3 ferra bi ak Promoville bi buñ ko programmer won dina dem au moins ba ci maire bi dina mëna a alléger

wala mu suulaat ko wala mu rembler ko pour alléger les souffrances de population mais daf ko fa bàyyi nekk si leneen te il nous reste deux mois tout seulement problème mu Bambilor dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy problème aménagement comico moom lay souffrir ñëpp moom la ñuy souffrir loolu moo nekkoon suma